dal leen ak jàmm ci seen rubrique culture tey nag dañ leen defar rek benn zoom ci musée historique bu Sénégal musée historique bu Sénégal ma nga nekk fee ca Île de Gorée lii di IFON institut fondamental d'Afrique noire moo ko taxawaloon ci ñetti fan ci weeru mars ci atum 1989 nekk na benn béréb bu fees dell ak histoire nekkoon bu njëkk fort d'Estrée boo xamante ni français yi ñoo ko taxawaloon ci 19e siècle ngir daan aar Dakar nekk na benn ci Afrique wëngal këpp buy wane bépp xeetu trafic nit ku ñuul muy bu arabe bi bu européen bi bu chinois bi ak yeneen yu ñu mel ci royaume sénégalais yewoon boobu la bi ñu ko defaraatee am nañ ci lu toll fukk ak ñett saal buy ëmb lu toll ci junniy objet ay carte ay document yoo xamante ne ni histoire Sénégal dinañ ko fa fekk ci fukk ak ñett saal yooyu sax bu ci njëkk dinañ fa fekk cartographie Gorée ci atum 1681 ba atum 1984 ñaareelu saal bi dinañ fa fekk li di paléolithique ñetteelu saal bi li di néolithique ñeenteelu ñetteelu salle nañ fa fekk Amar Coculier juróomeelu salle bi nañ fa fekk lii di site surtout fleuve Sénégal yi juróom benneelu saal bi tamit ñu fekk fa mégalithe juróom ñaareelu saal yi ñu fekk fa royaume sénégalais yi ñu duppee woon ko bu njëkk salle des Tumuliw juróom ñetteelu salle bi ñu fekk fa lépp luy fàttali traite des noirs

bu njëkkoon ci atum 1989 musée bi daan na teeru lu toll ci 1713 doomu aadama te ci atum 2004 bi ñuy def commémoration esclavage musée bi teeru na ci lu toll ci 29824 doomu aadama ña fay ñëw nag nekk nañ ay touristes yoo xamante ni dañuy jaar rek Gorée wala sax ay élèves ak étudiants yu ànd ak seen ay professeurs. lii nag mooy li ñu leen di xamal ci musée historique bu Sénégal ñu dëkk nag seen actualité culturelle félicité bu Alain Gomis mu jëwul ko tàbbi ci Oscar 2018 film bi nga xamni bolé won nañ ko ci liste film yi gëna xarañ ci langue étrangère mu mujjee nañ ko gagné ci boobule jongante édition bu ñëk ci journée mondiale de la culture africaine amal nañ ko niki démb ci di John Ayité de Dossavi de fondateur du réseau africain des promoteurs d'événements culturels mo dal di amal boobu xew-xew xew-xew bi nga xamni sax day tax Afrique di fësal lii di aada ak fépp ci ad De Donabé. Nous avons des seul agenda culturel la nuit des idées mooy rencontre culturelle bu am niki tay ci alhamis institut français Le Poste d'arsenor bu 20h30 jotee Soro et les grains de maïs avons na pièce de théâtre bu ñuy amal niki dimanche ñaar fukki fan ak juroom ñett ci janvier cheyof cœur imagination bu 11h jotee japp 16h li qui moy daal keppe seen rubrique culture di leen jox de dajee beneen